te loolu la ñu am pour teew fi euh, du leen euh, sant du leen gërëm parce que plateforme bi euh, mënoon na nekk rek plateforme bi nga xam ne day jàppale Idrissa xool nan lay yaatalee parti bi mais dañoo gis ni comme le parti Rewmi dafa nekkoon ci opposition bi donc jaadu woon na ñi nga xam ni te comme la ñuy wax rek balaa ngay gore gor si dara pour ñu fidéliser nos militants et nos dañoo war leen jàngal nu ñuy nappee moo taxoon ñoom. si jàppale Idrissa yemuñu si mais dañu ni jigéen ñi aussi war nañ leen jàppale pour que ñoom ñu mun a demal seen bopp moo taxoon ñu defar ay ay séances de formation à travers euh, pratiquement toutes les régions du Sénégal ñu jàppale leen ci formation donc loolu dañ koy saluer et que tey dañoo ñëwoon pour def remise des diplômes de ces euh, ci jigéen yu nga xam ni ñoom lañ jot a formé mais yemuñu si rek parce que bu ñu la formé jox la say diplôme dañ lay accompagner si ay financement pour nga mun a demal sa bopp loolu aussi lu bees la moo tax ñu ngi leen di euh, sant du leen gërëm o nom du parti xam leen ñu xam nañu ñoom Euh, je crois que li nga xam ni moo ëpp solo si wàll politique pour jàppale Idrissa Seck wéeru wuñ ci politique xam nga tey boo gisee tey euh, parti de l'opposition yi am ay jafe-jafe pour mun a euh, téye toujours seen base mooy que nit yi parfois dañuy pour ngeen fidéliser leen nga goreel leen il faut que ñu am ci dara luñ jàpp que tey loolu la plateforme Idy Horizon 2024 comprendre mais wax naa leen nii horizon 2024 pour mu mun a am si élection locale yi lañ koy régler parce que élection locale yi lu diggante hori 2024 euh, élection départementale moo fi mooy élection législative te boo xoolee élection législative c'est au c'est à l'échelle nationale et au niveau à l'échelle départementale Idrissa mi département bi mi au niveau national lu ko ci gën a soxal mooy la ville de Thiès donc la ville de Thiès il faut mu mu rester le bastion imprenable du président Idriss Seck pour ñu mun a envisager horizon 2024 moo tax may wax les responsables du parti mi la coalition Benno Bokk Yaakaar élection yi dafa am enjeu national nekkul rek ay Saër Mangane à l'est la ñu war a fal wala ministre Yankuba Diatara wala Lamine Diallo président Idrissa moo soxlawaat Thiès ñoo bëgg nax élection yi élection président Idrissa la parce que fii ak horizon 2024 élection bi nga xam ni mooy mooy permettre Idrissa mun a mun a mun a mun a mun a mun a ambitionné wu en politiquement en 2024 c'est les élections locales warul yo te eh, jàpp nañu ni bu ñu bu moo tax discours boobu nga xam ne dañuy tayaloo suñuy responsable discours boobu dañ ko war a changer dindi ko te wóor nañu ni tous les responsables de réew mi de Thiès bu ñu jógee xam ni enjeu bi nekkatul Lamine Diallo Sayer wala Idri euh, wala euh, Diatara mais président Idriss la ñooñu bu ñu mobiliser rax si dolli ak famille Macky euh, président Macky Sall je crois que les cinquante candidats yi ñu fiy tudd duñ ñu sax seen. Ah, xanaa ndaje jigéen ak bëgg a lu avancé loo Sénégal. loolu rek moo waral daje bi horizon 2024 nag daal di jël responsabilité yooyu def ko ci réew mi la ñu bokk nag ñu réew mi tey demuñu fen ñu ngi ci biir réew mi waaye dañ ñoo tudde suñu bopp horizon 2024 ndax dañ koo bëgg a yóbbu suñu président capale ba à 2024 looloo tax ñu tudde ko suñu bopp ah, dañ leen nudd ci comme formation maanaam euh, ah, fànn amu ci jàng njàng rek la waaw bu dee alxuraan la jàng la bu dee jàngum toggu la jàng la donc amul fànn waaye ñun ci togg gi ak yekk geeg li ñuy mën a transformer maanaam euh, des produits ko mën na doon mango dax bëggoon naa ko préciser sànq beurre sax nekkee mën nañ koo def ak mango yéen ñi may waxal xalaatu leen ko woon donc loolu yëpp ndegam yàlla xarañ loo nañu ba ñu mën ko def wax dëgg yàlla war nañu ñëw privé nit ñi ñu mën a jàng loolu pour mën cee jariñu ndax bu dul jaay sax nga war ko mën a jàng pour def ko ci sa biir kër. Ah, def na presque trois cent personnes. waaw trois cent personnes waaw tànn nañu au niveau du réew mi déjà pour commencer waaye nag comme suñu président Idrissa Seck liggéeyalul seulement réew mi noonu la ñu tuddee suñu bopp nag ndax ku ne am nga tur ak sant waaye du tere nga bokk ak say rakk donc looloo tax ñu jël Euh, commencement bi def ko ci euh, réew mi mais fi mu nekk quinze régions Sénégal yëpp la ñuy daw waaw quinze régions yi bu ne am na ñu vingt personnes yoo xam ni yi wala trente yuñ fa formé trente yooyu ku ci nekk da ngay am sa diplôme mën a dem formé ji chaque personne ci trente yooyu mën nga demaat formé yeneen vingt personnes wala trente ndax tu as le diplôme donc war ngaa mën a jàngali ñeneen waaw ndax diplôme national la waaw fi mu bii passé quinze régions yi ñu formé ñëpp non diaspora ñun ci bailleurs yi la ñu bokk waaw quatorze régions yu Sénégal yi ñëpp jàngal nañ den financé nañ leen fay nañu sax seen financement ba pare donc ce qui veut dire que ci année bii incha allah dès janvier war nañoo démarrer waat pour ñeneen ñoo xam ni ñii bëgg nañu ndax am na déjà ay dëkk yu ñu yu ñu capté du doon dëkk yi nga xam ni comme nga ni Thiès ni ni cees ni ni Thiès ni Kaolack wala nga ni Diourbel day dool daal di dugg ci biir commune yi ñi deen nag ñoom toujours ñoo leen di dimbale ji waaye nag financement bi xaalis bi ñuy dem di defi formation bi xewi na ci sunu jamono ñun ci sunu ñoo bëgg loolu moom sama nijaay daan na wax nii existé tout bu ma koy wax am naa fu ma ko teg looloo tax ma delloo si leen loolu mais loolu dafa war a dañ ndax ñu capacité yi ñu am intellectuelle ak compétence yi dafa dafa dafa dafa ëpp pour ñu di ko jël rek ci di ko dugg ci car rapide di tàccu loolu moom mën mënatu la ne même bu dul góor góor ji sax ndax yàlla bu jiitalee nit sax mënoo ci dara nag waaw ndax góor dañuy kat kilifa jigéen la waaye nag di may jigéen ji doole it dafa am solo trop man ba d'accorduma sax ñuy comparer les les deux ku ci nekk rek da nga am looy apporter sa morom ak di wax naan waaw man góor du ma ñëpp ay jiital ñëpp léeg-léeg a gis ci kër jigéen ñi fii dagg fii war a nekk donc man je pense que ni war nañu jiital doomu aadama bu am capacité war a def dara du ñu xool ndax jigéen la wala góor la waaw loolu daal man lu lu lu may lu may la boo déggee ñu naan parité parité ñu ñaar ñu ànd ñu naan kii góor la kii góor la. ñun jigéen lañu d'accord nañu ku ñu jiite waaye jiite bi nag day ànd ak ndimbal ndimbal bi mooy bëgg naa def dara nañ ma may sama sens ma def ko bu ma amee capacité waaw jigéen ñi dañ leen a war a former buñ leen former ba pare ñu organiser leen bu ñu paree ñu suivi ci ay financement ak matériel de transformation ndax kenn yorul sa xar rek ca kër ga jënd ko yóbbu ko ci gétt ga te joxoo ko ngooñ joxoo ko so ndox kon boobu xar defe naa bu ca suba gaa da nga koy mujj tuuri loolu laay bañ mu dal jigéen ñi may wax nag idi horizon quatre am na fu ma ko waxee Kaolack dama ne dañ doon wax Sénégal émergent mais moom dafa ñëw nekk Sénégal émergent parce que kenn tontu woon jigéen ñi nag ci développement ñun mën nañ ko wax ca kaw a kaw mën nañu wax ca kaw a kaw loolu ndax defe naa ku génnoon 74 ci développement waroo coocee nekk taalu bi sëriñ nga ci war a nekk te gisoon nañ ni jigéen ñi tamit amoon nañu jafe-jafe kon nag bu ñuy wax autonomisation de la femme du la ngay taxaw rek di ko wax ci micro di ko dugal këyit yi ci trois bi président Idrissa ñëwee ak horizon 2024 xam nañ ni loolu mooy dox benn réew moo mënta dem sans développement réew mu ñu jiitu rek dafa dem développement kon nag bu ñu beddee waa développement teg leen fële dafa ni tàccu rek ak woy rek mooy yorum réew dañuy nax seen bopp kooku eggul fenn may ñaan nag lii ñu fi def ba région yëpp ñu fanaan fi yend fi nekk ay jigéen horizon 2024 comme président Ndeye Marème a ngi fi présidente dama lay ñaan lii ñu jigéen ñi def ca kaw a kaw ngeen wax ca kaw a kaw ñu jàppale jigéen ñi jàppale bi des na li may wax nii moo ne ci yéen moo ne ci man jàppale bi des na lu baree baree baree baree bare kon nag dañuy ñaan yàlla lépp lu fi nit jàng yàlla na doon sa muur yàlla nañ ci ségol ba jàngaat ci leneen ndax xam nga jàng dafa am solo ki ñi fi am diplôme rek kenn ku fi am diplôme rek mën ngaa jàngal cent personne kon bu ñu demee jàngal cent groupement ñoo ñu jàngal cent personne dañuy daal di am mille femmes yu jàng te bu ki nga xam ni bu amee lu mu wàcc ca këram ca dépense liggéey ko ci bisam doy na ko jógal day jóg kon kon politique bi war nañoo loolu Cette cérémonie de remise de diplôme constitue un moment important dans la vie du parti et consacre l'ensemble des efforts menés jusque-là pour la promotion de la femme. En effet, au lendemain des élections présidentielles de 2019, dans la mise en œuvre de sa vision de soutenir le parti sur la formation et la massification, la plateforme IDI Horizon 2024 a vu le jour. Des militants et sympathisants du parti Réumi ont mis en place ce projet pour permettre au parti d'être présent sur l'ensemble des communes du pays. Elle constitue également aujourd'hui un cadre de concertation sur la vie de notre nation, du parti. Madame, Monsieur, les membres de la plateforme IDI Horizon 2024, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau de la plateforme, de la, dans la mise en œuvre de son projet, la plateforme IDI Horizon 2024 a initié sur l'ensemble de ses communes une campagne de formation des femmes et d'autres formations politiques, des femmes du parti et d'autres formations politiques sur la transformation et la commercialisation de ce qui a permis pour le moment à 220 femmes de bénéficier de ces formations dans les localités telles que Dakar, Pikine, Bargny, Thiès, Diourbel, Touba, Koungheul, Vélingara, Matam, Podor, Ziguinchor, Réfane, Fatick, Kaolack. Des formations sanctionnées par des diplômes dont la remise à leur récipiendaire nous a réunis ce jour, mais également la plateforme a mis en place d'importants moyens afin d'accompagner ces honorables femmes dans leur financement. Nous sommes convaincus que vous aurez tiré parti des moyens que nous avons mis à votre disposition pour être entreprenante et autonome. Madame la Présidente, Madame la Première Vice-Présidente, chers membres du Parti Réunis, Nous tenons à remercier les membres et responsables de la dite plateforme qui, qui n'ont qui jamais cessé de ménager aucun effort pour la réussite de ce projet.